kenn dëkkagu fa nga dem di def assainissement pour di préparer ña fay dëkk ñëw fekk dëkk boo xam ne mooy deuxième ville du Sénégal tey bu fekkee yaatuwaay la sax mooy dëkk di gën a rëy tey ci Sénégal ci wàllu yaatuwaay euh, ay millions de personnes dëkk fi mu nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu économique ci wàllu lépp mbooloo di fi dajee boo xam ne du dajee fenn ci Sénégal ci Afrique de l'Ouest sax ndax chaque année li fi dajee ay millions et des millions de personnes ñooy dajee ci Touba amul fenn fu kon jaadu woon na dëkk boobu tey ñu jël ko au sérieux fexe ba def fi assainissement boo xam ne bu wér lay doon su ma déggee ñuy wax ay 23 milliards mi ngi mel ni géej nga jël benn tibbu suuf sànni ko ci biir géej ñu ko bëggee assainir il faut ñu dégager ay 500 milliards 600 milliards pour ñu xool nan la ñuy def ba assainir Touba yëpp ba nga xam ne bu tawatee mais Touba fenn ndox du taati ñu fexe ba nga xamante ne kër yi dootul amati ay fosse ci biir kër yi mais lépp dañu koy bracelet ci assainissement bi mais tey lu fi kër rafet rafet boo duggee ci biir euh, euh, fosse septique bu ñu tabax lay am ci biir loolu Touba war na romb foofu ndax mënoo dem ba nekk deuxième ville du Sénégal ci wàllu économie ak ci wàllu population ak ci lépp ba léegi si jëluñu la au sérieux tey jii itam gis ngeen jafe-jafe yi nga xam ne Touba dund ko ci am ndox mooy la doon wax président Ablaye Wade bi mu fi jógee bàyyi na fi 29 forages président Macky Sall ba mu toogee léegi 3 forages la fi defagul kooku jëlul au sérieux li nga xamante ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu koy dund ci wàllu ndox mi moo tax jafe-jafe ren ñëpp gis nañ képp koo xam yaa ngi ci Touba daal sentir nga li nga xamante ne man de fi ma dëkk muy xaayra ñëpp xam nañu ne ci télé laay wax ñëpp di dégg ñëpp xam nañu ne ren jafe-jafe yi ñuy dund ci wàllu ndox mosuñ ko dund te boo demee Daaru Manaan loolaa fa am boo demee Gede loolaa fa am foo dem ci Touba bañ dindi sax loolaa fa am ay jafe-jafe ma jàpp ne nag jot na président Macky Sall su fekkee bëgg na jàppale Touba mu jël Touba au sérieux jël ko au sérieux ci wàllu assainissement ak ci wàllu ndox ndax Touba sonn nañ population bi sonn nañ su suñu ko waxee sonn nañ suñ ko waxul sonn nañ jot na nag ñu taxaw